Euh, ñëw bi nga xamante ni moom fi Ousmane Sonko ñëw euh, ndax ku ne xam na ni euh, gannaaw ba nga xamante ni président de la république tas na li nga xamante ni moo di assemblée coow li bari na lool ñii ne waroon na koo tas waru koo tas Ousmane Sonko ñëw wane ni taalibe la wane ni soppe la wane ni ci kër gi la bokk ñëw daal di indi saaram man benn problème laa am mooy nit boo ko soppee doo xam si këm te man dama leen a sopp man loolooy sama problème man Abdou wax naa la ko waxaat naa la ko ci émission waxaat naa la ko ci émission yàlla bindul benn politicien bu ma mës a toog bureau di xaar mu may ma. Mhm. musuma bind lettre président de la république musuma gis soxnaam moo tax man xaw ma état bu neex ak bu naqari ndax man yonent bi rek laay dund. Mhm. maa ngi lekk maa ngi naan yor naa oto maa ngi nelaw maa ngi yeewu. Mhm. kon yaakaar naa dëkk bu neex ak dëkk bu naqari mu ngi dépendre ci yàlla mi ma fi bàyyi ba ma ko yëg bu dëkk bi neexoon te nga tëdd ci lalu hôpital yii bu nu xëyoon Sonko di jox kenn ku nekk un milliard te nga tëdd hôpital neexul ci yow bu xëyu Sonko xëyoon di jox kenn ku nekk deux milliards wala président Diomaye tafaata nga nekk ci kaso bi neexul ci yow mm-hmm. jullit du jàmbat mm-hmm. kenn ku ne li nga war a dundee yàlla na ko ba pare ñii toog tey pexe toog tegu leen fi mm-hmm. ku ni pexe leen fi teg weddi nga yàlla xulillahuma maalikal mulki tu'til mulka man tasha yàlla nee na maa jox nguur ku ma neex kon nguur gi ñoom pexe tegu leen fi yàlla moo leen fi teg ñi nekk ci seen ginnaaw moo xam ñu bëgg moo xam ñu bañ bu ñu bëggee noppalu dañuy noppal seen bopp nangul ñu toog fii ak juróomi at daa yàgg mënoo leen critiquer ba ñu wàcc maa ngi leen di ñaanal ndax lu mën a xew ay njaboot lañu. Mm-hmm. lu mën a xew yaru nañ ñenn ka salaa ciy ñaax. mooy léeg-léeg ñu naat nit ñi ay ay am na nu nuñ koy waxee ci ci ci ñoom damay fàtte baat bi mooy ñi nga xamante ni parti boobu la ñu bokk. déedéet am na beneen tur. patriote yi. Mm-hmm. dama gis chaque jour fu pro dem ñu dagg ay séquence tooñ sëriñ si. Mm-hmm. wala ñu wane poro caméra ko caméra benn sëriñ wala nañu fokki bi ci des damay damay jaar ci tur bi Baara Ndiaye mhm. ndax sama nit la boo ma sañoon mu wàññi média bi tuuti mhm. ci ñimi muy tontonteel surtout ci njaboot sëriñ Touba gi mhm. ndax nit ku baax la te bu mu am habitude génne safaan ci nit mbaa mu wax ci nit ak ñi ma ko seqal ñëpp ndax moom laa ci gën a miin daanaka te sañ naa ko kon tey ñoom ñëpp laay wax ni leen Abdou nañu liggéey ñu bàyyi détails yi ñoom ñi ne ci état ñu wàññi da ngaa gisati Dame ñu mel ni ñoom ci tele yi fii ma ma waxal la bu dee dëgg nga bëgg a dégg kenn ku ne sa bopp la ñor kon tey maa leen di ñaan yii ñuy defante ñu bàyyi ko. ñu ci ñu ci bari ne euh, El Malick dafa war a démissionner parce que accident yi bari na euh, ban jàngat nga ci am. El Malick day bu démissionné wala état bi wàcce ko ma xam ne kon ñoom nangootuñu dogalu yàlla El Malick mu ngi def li ko war. Mhm. yàlla du ma yor bakken yi di rey. Mhm. ñi war dee yàllaa leen rey. kenn mënu ci dara ñi dee ci géej gi ci lañ waroon a dee wa maa taddiri nafsun maaza taksibu gadan wa maa taddiri nafsun bi ay ardin tamut ku ne fi nga war a dee bu yàlla ne ci géej gi ngay dee bu la yàllay xabtal ngay dem ci géej gi mënoo ci dara dogalu yàlla la nit tëddul ci kaw lalam tëj buntu këram ay nit dugg këram fekk ci kaw lalam ray ko yàlla ci alxuraan walaw kuntum fi burujil musayyada foo a fu nit nekk te war a dee fala dee di tëjuwul mhm. waaw lu ëpp loolu sécurité est-ce que dañoo dajji kërëm biir kërëm lañ ko fekk ci kaw lalam lañ ko rayé kon alquran li mu waxoon mhm. euh, man buma sañon sama gémmiñ lu bax rek laa ci wax mais accident yi am dogolu yalla la nañ ko nangu donte auto yi nañu daw nank ñi dé ci géej gi dogolu yalla la parce que yalla ni won ci gi lañu wara déwé mhm. Abdou Saliw nit ñi nañu bayyi di di di di di toroxal gor El malik nit ku yaru la nit ku bax la yalla ni won dina nek ministre ci senegal dee yi même bu fi jugee keneen toogit mënu ci dara parce que du lu ñuy ñaanlu mhm. du lu ñuy muslu nañu ko bàyyi mu liggéey liggéeyam doxal service am maa ngi ñaan président de la république mu gën a jàppale El Malick ndax fi bi ma juddoog léegi yàggul waaye musuma gis xew-xewu diina jot benn état gaare ay biis dugal leen ci ni leen nañ leen dem Touba wala Tiwaawoon moo ko fi indi mhm. kon mi ngi def li ko war nañu ko bàyyi mu liggéey bu fekkente ni ku ñu ni nangam rek ñu wàcce ko kon état bi du liggéey El Malick nañu ko bàyyi président de la république ñoo ngi lay ñaan loolu billahi wallahi tallahi xaw ma ko wala moo ko xamee turam laa xam mhm. gis naa ko ndax daje naa moom ci jumaa ji mhm. mais dama wax ni président de la république na ko bàyyi mu doxal waaram doxal liggéeyam ndax mu ngi def li ko war ndaw la lewet na jàmbaar la. macha allah lan mooy doon gu ak lan ngay sénégalais sénégalais yi nañu waxan nañu tiktok bi. Mhm. ndaw ñi maam nañu. li ñu wax ñaaw na waaye ci mag ñi la ko déggee ñaar ba ñett ba ñeent rek laay dénk dénkatuma xale yi mag ñi lay dénk. Mm-hmm. mooy ku mel ni ki wax ci wàllu ki wax fan yi passé ba ayib bi am Sénégal nu mu tuddati. Cheikh Omar Diagne mm-hmm. nit ku baax la na wàññi li muy wax. ci lu jëm ci wàllu tarixa yi ndax dëkk bi moo ni bindoo te yonente bi dafa waxoon ne la al na naa ima laa anallahu man ay xazaha yonente bi nee na fitna day nelaw yàlla rëbb na ku ko yee kon maa ngi koy ñaan ndax lii mu wax ba kenn ku ne di wax baana jaay di wax fii docteur di wax fale keneen di wax fale yëpp moom moo ko sooke nañu leen bàyyi te sëriñ muntaxaa ñu koy ñaan mu wooleen ñoom ñëpp ñu toog mu ni leen wax ci na fi yam suul leen ko ndax li muy jur ëllëg kenn xamu ko Serigne Babacar Sy Mansour bu ci amee njaboot woo leen ni leen li ngeen nekk bàyyi leen ko président de la république yilif ñëpp woo leen ni leen seen wax ji tey Sénégal rek mooy dëkku waxata xanaa xamoo ni vert zone rouge bi nekk ci sunu drapeau yi bu ma sañoon nu mu tudd euh, li ci digg bi étoile bi mm. lan waroon dindi roo fa ñun dañuy wax a wax bafa wax ba fa wax na ñun étoile bi roo fa làmmeñ billahi ñun ñoo bari wax ñun ñoo mën a xasante asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu barakaatuhu yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy bàyyi xel Biprot ak Dakar Buzz Eh, ñi ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm ju bare bari gis ngeen nag ñi ngi fii nga xamante ni moo di ci Tiwaawan li ngeen gis mooy jumaa ju bees ji jumaay Seydi Hadji malik bi nga xamante ni eh, caabi yi eh, jox nañ ko ko waaye nag mu doon bis boo xamante ni bésu mbégte la suba di gàmmu ñu toog ak ki nga xamante ni moo bëgg Seyduna Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ba mu jeex tàkk yastas ñi ngi lay xaar baax di la jox sa wàccuwaay maa ngi lay delloo ziar Abdou saliw maa ngi lay kontaane di la ñaanal yow itam yàlla defal la jàmm ak gaa yi nga xamante ni ñoom ngay àndal. macha allah ndax euh, fu ma ne fekk nga ma fa. Mhm. te man aw ma benn bis bu dul bésu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Abdou man bëgguma daara ci àdduna nañu ma xool rek yéeg ni bëgg naa yonent bi. yàlla xam na ni boo xoolee sànq rek ni ma sawaree. Mhm. di tëb di dal. te dama yëg ni bëgg naa ko. Mhm. ba bu weeram jotee sax day feeñ ci sama jëmm ji mhm. damay gën a rafet Abdou. macha allah remarqué wu lool. man kay gis naa ni remarqué woo leen ni waaw remarqué woo leen ni weeru yonent bi damay gën a leer ndax mbégte mi nekk sama xol bi yéen olof yéen a wax ni lu feeñ ci lu feeñ ci kanam lu ngeen koy waxatee. lu feeñ feeñ ci kanam looloo may daal ni billaahi yëg yëg wallaahi yàlla xam na ko yëg-yëg bi may am nii ci cofeel bi may am mhm. di bëgg ni sama waa ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak tey ak suba ak bis yëpp mooy borom waaye subaa ci raw alaaji li may yëg foor na de. macha allah euh, yow Saas li nga yëg foor na waaye nag euh, euh, lii nga xamante ni moom moo nekk jumaa jii nii mu doon loo xamante ni mbégte képp koo xamante ni yaa ngi wax ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mu doon loo xamante ni yàgg nañ ko mbébét tey sunu borom def mu daal di sotti ban yëg-yëg am. waaw yëg-yëg bi ma ci am mooy li ma njëkk a xalaat li ma njëkk a xalaat li ma njëkk a wax Abdou Saliou mhm. dama wax ni yàlla ndamu na. malaayika yi dañoo waxoon yàlla ni ko yàlla yow kat ay nit kat boo leen wàccee ci kaw suuf daal dañu tur deret a duñ la sàbbaal mhm. yàlla ni leen xam naa lu ngeen xamul tey bëccëg gi ñu joxee xalifa bi caabi ji mhm. sagu na dëgg la kon kon kon kon kon kon kon jullit ñi am nañu ndam mhm. bi ci des mooy yonent bi sagu na Omar ibnu Xataab laaj na ko kan mooy sa soppe mu ni ko sama ginnaaw la ñuy ñëw du ñu ma gis du ñu gis ku gis ku ma gis bi mu génn àdduna bàyyi fi jumaa ju mel nii nit ñu ñuul ñi gisuñu ko am cofel ci ñoom ba a defar jumaa ju mel nii bi ci des gan boo ko amee da nga koy dalal fi nga gën a fonk taalibe seex yi bu nuy wasifa ba toll ci juróom-ñaareelu per yonent bi teew Aboubacar teew Omar teew Ousmane teew Alioune teew Cheikhu Tidiane teew Cheikh Omar teew Mouhamadul Ghali teew Alpha yi ma yoro teew Cheikh Seydil Hadji Malick teew ak njabootam ñooñu nag foo leen di dalal nag war naa mel ni jumaa ji wa xaadirun nabiyuna wal xulafa maa sahbihi fi kulli yawmin qad wafa beneen bi ci des mooy am na ko sagooti muy Cheikh Seydil Hadji Malick gaay la gane àdduna mhm. tiwawan la ñew jangalé tafsir alaaji malik momul tiwawan dañ ko fi indi won pour mu tafsiral mag ñi mhm. comme ni nit di tafsiré koor mënon jangalé tay ba Cheikh Seydil Hadji Malick dootoo tuddu tiwawan te doo ko tudd mhm. bi ci dess moy tafsiré ko fi indi won yalla fayé nako jenen juma tay inshallah Abdou man de kuma ma dégg li mag wor bi daala yaangi ngi ma bëgg ndax lu ñu yor ko ci diine da yow mi leen topp leen taxaw naan biddaa gis gisuma lo leen defal gisuma loo sagale yonent bi gisuma lo sagalé diine tey daal bu ñu joxee caabi ji xalifa bi am naa mbir ko lool rawatina ci bés bi nga xam ne ci la maam Abdoul Aziz Dabakh génnoon àdduna di 14 septembre. wax nga xalifa bi. yow Seydil Hadji Malick li mu wax yonent bi boo ma ko doon laaj tey man ak yow mën nañoo toog ci heure bi doo lekk du ma lekk ñu ci waxtaanaat ba suba ci heure bi li mu wax yonent bi bari na waaye li ma ci gën a neex mooy la mu waxoon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abdou li gën a yéeme mooy quatre heures du matin jëm cinq heures mboolem lu xewoon ci guddi gi diggante yonent bi ak yaayam Seydil bokku na ci lima gëna yëm muso tok ci mbolo ba dégg ñu ni diw mësna sang yonent bi mësta tilim nit musu ko sang way juróom neena bimu gané aduna bimu tok ba ci ñaari tank yu yëpp bopp lu ñu jiital bi ñu ñëw fenen lañu jaar waye mom bopp way juróom la jaar jiital tanku nday jor mu ñëw ba ci oom yi la ko ñaar ñu jigen ñiko tim wax ni ko amoo droit gis li déparé ci sa jumbaxu dom ba ci oomam ñaar ñu jigen ñi kenn ki asiyatu la ancienne jabaru firawna ki ci dess mariama yaayu aysa alaaji malik ne ahankañ wa xadra at seen na niswatun ñaari jigéen xat xul na asiyatun wa bintu imrana tiikil xuuru laa takimi <laughs> alaaji malik nee na bi guddi gi xaajee ba yaayam yeewu ci guddi gi gisul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daw génn ci biti nakate boobu gane na ba ñaar ñu yóbbu ko asamaan présenté ko benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar yóbbu nañ ko aljana li ñuy defal xale ba ñu naan ko njulli defal nañu ko yonente yàlla muhammad ca kaw mu daal di wàcc yaayam nee na bi ma dawee génn ci biti xool dëkk bi leer lool bi ma dawee dugaat ci biir néeg bi fekk naa ko ñu tëral ko moo xam ne du maa ko ko nooy naan lool ba fa noo jam xeetu parfum bi bu ma koy fóon day perse ba ñëw sama doxali nax neex yaayam nee na ma yëkkati ko mu ree ma gis mu am fanweeri bëñ ak ñaar benn bëñ bu ne laalul moromam parce que yàlla bëggul yonent bi di lek yap muy tak ci ay bëñam mu ormaal ko bu bëñ bu ne mu abdu romb moroomam bu musaana lek bu gàllax ni ko nga gis mu daal génn te itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla teral nako ba fa min fa riixuhu asfafa min al asal yëg nga ni loru yonent bi muy tiflitam mo gën non neex lem amal ka fa min karami loxo yàlla def ci teranga yaayam neena ma sigi xol ko gis leer gi di genn ci bëñ sallallahu alayhi wasallam sallam ma xool yéenam yi mu sekk lol beut yi rafet lol mu jël baram bi dugal ci bir gemmi gi yaayam neena mo moo nampal bopam wa iz atakaana مسرورا يخالو مكحولا كما كان مختونا بلا ألم جنة عند الأقدرك وأخرجته نظيفا ما به خزر لملا ومن طيبه تطهير للستم باي بني 24 ديسمبر جيم 31 nga jëndal sa doom kado donte bokko ci diine ji koy laaj waaye yàlla niko bi nga gane aduna jàppal ni yaa moom asamaan ya nabi lem ñetti baramam talal ben baram bi minuit la tollal déggal 5h du matin la tombal sayyidul haji malik nee namu def baram yi xam naa ko yuum ma ngay junj moy talal ta bara asababata baaraamu sànnikaay bi miqbaadan mu bank asabi'ahu yenen barami yi malik nee nimu don def tuñi yi ko mislal musabbih mel ni koy sàbbaal alaaji malik nee na don def bët yi xam ko yarnu ma ngay xol alul wa chaqaw asaman lir bu dogo doog a judd alaaji malik ni limu mu ko ñu ko lu wax mu ni jalal rabbin rafi'an an xaala ata wa hila sabbaha fi takbir zil azami lima gëna neex moy laajoo ma dara lu dul yonent bi ku nak li nga koy laaj waye nak euh oustaz waxal ak ki ba pare wax waxal ak kii kii nii ba pare. waaw kii.